bon ma len di fay ni kon sa sante fay na ko. ku jaar fam ñaareel. yo la mo la indi. ku Kouthia da nga takk wa wala déet. lo ci bëgg xam. ndax dëgg la wala am dañ demee ba ci biir interview na la tontu parce que yow waxoo ma sax no nuyo go sax nan ma ay da nga da nga tak ñaareel wala da nga takk ñeenteel. non ba ragal eh tamit amna droit de réponse la yo tamit su ma neexee bañ ci wax ah loolu rek mo la indi. Kouthia euh, ñaata euh, li ma euh, kontaan ci Aliou mooy secteur bi nga xam ne mu ngi koy développé ci média parce que Aliou bi ñuy taxawal Pikini production lépp fii la ma fekk ci benn caméra bi ci daw fii ak ci montage yeeg ba tey mu am ay internet damay ñaan yàlla vraiment Aliou mu nekk tey bu ñu doon def ministre des banlieues man sama choix day porté ci moom. parce que Alioune ku ci ak Alioune jaño yam waaw parce que Alioune waaw Alioune gemul luxe gemul am-am partager aider ak solidariser mo mo tax Alioune hein ah, fi mu toll ni mu toll fa neuma dafa toll ci galère de. Aliou mu ne kon invité woo ko bi ngay takk jabar. Euh, Pikini production projet yi ma am ak ñom yamul sax ci ay corps parce que corps sekul nekkul loo xam ne périodiquement la sama diggante moom am nañ yeneen projet yoo xam ne bu koo koor sax dañ ko fas yéene def incha allah ci 2017 2018 bi